قل رب سدني علما وقال بعشت معلما سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين كانوا أئمة المعلمين وعلى كل معلم خير إلى يوم الدين رضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وعن كافة خلفائه ومنهم شيخنا عمر الفوتي رضوان الله عنهم يا أئمة الشيخ احضر لنا في أحسن ما احضر والتفي بنصرة الله تأتي لنا بسفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بتاج تعليم وعلم والعمل فتوجنا يا قدم في الأزل أن نربج جهلي بنور العلم يا واسع العلم واحد فهمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، ñu ñëw ci dërs bi démb ñu ngi taxawoon ci mm, ñi nga xam ne day gàllankoor nit ki mu bokk ci akaabiru ulama yi Hmm, waxoon nañ ci def réer muy xam-xam te mooy sa sëriñ bi rek lu mu xamul doo ko laaj keneen ak réylu bañ a laaj keneen jàpp ne koo laajee dañuy wax sam tarje day wàcc waaw bokkoon na ci timin ñàkk ña suul ñàkk teggin ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoom ay géej lañu ndax soo amee ñàkkee teg ci ñoom ñoom dañ lay sàññi te duñ la jox dara ñu tëjewoon ko hmm, imaam abdullahi adnaari ki nga xam ne yàlla ko yàlla gërëm nga xam ne moom bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo woon xam-xamu daqaayiqul ulum waaye dafa daan def bu dima si majlis bu ñu ko laajee mu mel ni ku xamul dara ba gaay jàpp ne moom dañ koo not ñu laaj ko mu ne man sama xam-xam bi duma ko jox koo xam ne ah, su ma liggéeyaloon dundam yëpp lu tax mu fay ma li nga ko defal kon ñoom dañoo fonkoon xam-xam duñ ko daan jox lu may ku ko bëgg ko ci nga xam ne dañ ko war a sàkku sëñ Cheikh Omar Fuuta Tall continué waat di wax ne boo min ha bokk na ci nga sabab yi nga xam ne day sabab nit ki bu du mën a xam xam-xam bu bari xubbu dunyaa bugg àddina nit bu bëggee àddina du mën a mu ne xubbu ah, dunyaa bugg àddina àll si ga nga xam ne yasul dafay fekk baaxdul jaxale si ñi way réer ñi wa ulama ak suuy ak borom xam-xam yu bon yi ani nuxuudi si jóg ilaa musaaxabati ulamaayil axirati ci dem ànd ak borom xam-xami àllaaxira yi al mutadalleena aji mm, wàllu bil ulumi ci ay xam-xam wa asraariha ak mbóotami wa daqaayata ak sew-sewi xam-xam bal bayil yasudum daf leen di dëdduloo filinal mi si xam-xam maanaa ñoom daf leen di dëdduloo xam-xam maanaa dootu duñ soxlaa dem ci xam-xam wa yasudum mu leen di mëdd moom bu bu gàddina ani taalumi ci njàng wa yuraqibuhum mu leen di xemmam loo fi duniyaa ci àddina ويسرفون مولين دي صوبي اما سوا هاد لود هادنا لب لي هادنا رك دفل انتي صوبي جمال انتي هادنا وطن صاري فو مي صوبي مي صوبي كو همتو مسيني هيت بسالي كي لولو الى جمع متاع جمع كي داجالي آه، بنياتو مهادنا برك سبوبا نك سين هيت يب نمي دف موي نيني دف بام هيت اوتوغرافت كات كات نيني دف بام دكر غرافت na ñuy def ba xam ne dañuy am yu rafet bu nekkee ci palaatu télé yi di wax di di tonte ay toj-toj la ñuy wax loolu moo leen gënal ñu dem ànd ak boroom xam-xam àllaaxira te mooy nit yàlla yi ñu mën leen a defar li leen koy may mooy bugg àddina ndax nit yàlla yi yàlla ñoom ku bugg àddina doo mën a ànd ak ñoom soo buggee lekk gu neex doo mën a ànd ak ñoom soo buggee daraja doo bugg a ànd ak ñoom dafa bëri suñu jamono dajale mm, yóbbalu àddina bi min tasawu ji saa yi ci takk ay jigéen fu ñu gis jigéen ju rafet ñu takk mu wa muqaaranati asbaabi ak tisaabil amwaal ak lënkoog sababu fàggu xalal yi lépp loo xam ne dafay maye xalal rek danañ si dem ba seen diine yi sax danañ ko jaay dañuy def ay projet yëpp projet projet yëpp pour lan pour man see amee xaalis rek au yuri su mu koy doonloo maa sukkar lañ tudd liñ doonloo mooy liñ tudd loon mooy lan takk jigéen ñi Ah, no nu mu def mën a xalal dañ koy def sababu utukaay xalal yëpp dañ koy def donte da nga da dem lënko buuy sax ñu lay jox xaalis soo ko defee wala nga tagg leen ñu jox la xaalis da nga ko def loolu yooyu nag daf leen di daf leen di donnloo wala daf leen di def ci ñoom fu bu raaxati bugg noflaay su ko defee léegi dootuñ nangoo sonn wa tag sëriñ mën naa mi ak bëri nelaw su boobaa bugg naa noflaay ak nelaw rek ndax oto buñ climatisé la ñuy fexe am saal buñ climatisé néeg buñ climatisé lépp dañ koy climatisé xataa buñ tabaxee jàkk sax dañuy fexe bañ climatisé ko bon bokk na ci lii tax nit ki du mën a dekk ci borom xam-xam mag yi bugg àddina ndax bugg àddina lépp lu lay taxa euh, ñàkk sa àddina yi danga koy fi baax te àddina boo ko buggee lekk ak naan ak tey say nelaw rek noflaay ak nelaw rek waaw wa bokk na ci ba tey lii tax nit ki du mën a am xam-xam bu bëri faqdul masaayixi ñàkk ay sëriñ alasi ñi nga xam ne tabaxaroo dañoo géeju في علم الشريعه تي كام كام شريعه بوكنا سي لي تخت من نياك ولا نيو بروم خام خام ميغا خامني دانيو جيو سي كام كام شريعه رواتي سوني جامونا جي وا وا علم وا علم ني خام بروم خام خام يو خامني دانيو جيو سي خاري خاري با بار خام معقولها لين خلوم خام نان معقولها لين خلو ليغا خامني خيا كوي خيلي ديكو ديكو سيت افلا سكرون افلا تدبرون li xel di xelaat ba génnee ko ci sa dañ koo xam wa mantuuqi ak lu ñu waxam li nga xam ne dañ koo tudd wax ko mooy naqlu bi li nga xam ne alxuraan ko wax wala hadiis ko wax wala borom xam-xam wax ñu dajee si dañ koy xam wa mafhuma ak li nga xam ne dégg nañ ko ci dañ koy xam wa xaas ya ak li jago li nga xam ne xaas la dafa am ñu jago wa ama ak ñi nga xam ne dafa matale dafa am ñoo xam ne lépp la ñëpp lu matale wa mutlaqaa ak luñ boyalam loo xam ne amul tënk fépp la mën a dem bépp jamono la baaxe bépp temps la baaxe wa waa ak luñ tënkam ak loo xam ne dañ koo tënk benn ñu tënk ko ci jamono wala ñu tënk ko ci ay nit wala ñu tënk ci ab barab yooyu yëpp dañ koy xam ci sariya wa naswa ak yaxam dañuy xam yax yi wa saahirwa ak biti sariya wa ma mu biinuwaa ak lu biram li feeñ ak liñ biral lépp dañ koy xam wa mujmaluwaa ak luñ tënkam liñ leeral mooy liñ détaillé mu bayyinu xaa mooy mu fasalu xaa rek liñ détaillé tàggale ko leeral ko am ne nag ñi dañ koy xam waaye muj mu luwaa liñ tënk ci nga xam ne dañ ko résumé tënk ko dañ koy xam ci sharia wa mustaraka ak luñ bokkam loo xam ne dañ koy bokk li nga xam ne dañ koo bokk ci dañ koy xam wa naasuqa ak aji folli li nga xam ne dafay am dafay folli ci sharia wa mansuqa ak li nga xam ne dañ koy folli dañ koy xam boroom xam-xam yooyu dafa néew moo tax ñu bari mën ñu am xam-xam wa tabaxaroo ñu géeju dañuy xam sharia lii yëpp wax nañ ko dañ koy xam si sharia nga xam ne dara du leen leen sharia lu feeñ ak lu nëbboog lu leer ak lu ñu tënk ak yëpp dañ koy xam waaye duñ si xem wa tabaxaroo ñu géeju fi luxati la arabi ak langue arabe naxwoon ci naxwu dañuy xam naxwu règle naxwu yëpp dañ koy xam ndax arab boo mënul naxu doo ko mën a làkk doo ko mën a bind doo ko dégg wa tasrifan ak sarf mooy soppet baat yi ñu baat bi ci lii yóbbu ko fële yóbbu ko jëlee ko ci fi'il yóbbu ko ci fa'il masdar yooyu mustaqaat yëpp ñu xam ko wa istiqaaqan ak ak ñuy xottee ci baat bi katab kitaab mooy téere nga mën see génne kataba mën see génne kaatib man see génne maktub maktaba loolu mooy istiqraaq yi nga xam ne dañ koy xottee si baat bi loolu dañ koy xam ba nga xam ne baat bu ñu ne capp rek xam fa mu jóge mooy lu xam soo xamee mustaxaq istiqraaq sarf rek daanaka da ngay mën a fii euh, baat yi bon dañuy xam naxu xam sarf xam istiqaaqaat ci loxol arab yi watabaxaru ñu géeju fi ulumil balaaxa ci xam-xamu balaaxa mooy fasaa xatta arafoo bañ xam majaasaati ay ay majaasam mooy yi nga xam ne dañ koy xàbb bu nekkul xaqiiqa may majaas loolu mooy majaas mooy loo xam ne dañ koy wax te jubluwuñ ci nga xam ne mooy dëgg-dëgg mbir mi buñ ne bakkati sama asamaan si jooy na loolu majaas la asamaan du du jooy waaye dañ ko loolu majas loolu lañu tuddee maasam majas ñu xam majas yi balaaxa wa istiaraate ak xàbb yi xàbb loo xam ne dañ koy xàbbal waaw mooy loo xam ne dañ koo jël jëfandikoo fii ca xam ne feneen ko moom maanaam almawtu kaasaatun tudaaru alal wara dee ay kaas la yu ñu jëfandikoo si nit loolu xàbb loolu istiaara la dañoo xàbb dee ni muy demee si ku nekk abbee ko comme invitation boo am ñu dañ séddale kaas yi kaas yi ku nekk da nga si jël bon loolu istiaara comme ni ko sa maam Cheikh Oumar al ka euh, kaasatun tudaaru ala wala man lam yasux man lam yasux yawman fa yawman yashrab waaw ku musu tey tamit bu subaa danga naan wa muxsanaatiha ak yu rafetam yi yi nga xam ne dafa rafet kàddu gi nga xam ne boo ko waxee dafay rafet ci ma ci dégg ak ci tërkiib wa xayri ak ci yeneen yi waaw yooyu tamit danga koy xam de xam boroom xam-xam yu géej yooyu moo bëreetul léegi xam-xam xamuñ ci lool de bu njëkkoon ñu ne nit ki xaalim la rek lii yëpp la koy xam وتبخروا نجيجوا في علم التصوف في قم قم التصوف بين ما سيت بين ما سيت التصوف فكر أن يفاس كوك دل غدا كسل من تخلق أن تجكوه وتحقق أن أكل دقل دين كوي جكوه برا تختكو ما لو كان يالي بعد ما سنيوم دين كوي جكوه برا تبعد ما دين كوي دقل بوا خلا إلى إلى لا بوا خدمة دعوة إفكت نيوكاي با أبليك نيموارة بنيس آه، لين وخرك لولا دعوة إفكت نيو نيو نيو دكو دف نموارة ba pare nag amee jikko ji motax tax tasawuf nekul so ay sagar ak lek mburu mu wow mais jikko la ak dëgg nga ne ko ba xana bon fofu lañu yam yem mu wa tabaxaroo ñu geejju fi ulumil xadis yi qam xamu xadis borom xam-xam yi nga xamé dañu geejju timin tamit si xam-xam yu passé bolé ci geejju ci hadith wa fi ulumi tafsir ak xam-xamu fi ila xayri ma sukra ba ci lenen luñ tudd min al ulumi ci xam-xam yi التي لينغا خامنا لا تطيلو ديف ديف ديت نيو غودال لا نوتيلو نيو غودال بي سيكرياتو دم سيرين يو ملني دا فا ماتول ولا دا فا بريتول مونا ما يسا فقط ندم نياكنا المشايخ سيرين المتبهرون ني جيجو الكمول ني ماتني في laa qidama dëggu xamul léewu ñee leen mu xam-xam annahu naka ñoom minal ulamaa yi bokk nañ ci borom xam-xam yi su boobaa ñi nga xamee ne ñoo mos tuuti jàng tuuti xañ na jàng nañu mën a liraat e, xaamu saydul rek wala ñu xam benn masala fiq rek boo xam ne kii wala ñu mokkal ab hadis dañuy jàpp ne ñoom ci borom borom xam-xam lañu su ko defee ñuy fatawaa di taf waa di wax la neex comme li nga xam ne benn waaye waxoon na ko si ne nit mën naa takk bàjjanam xam nga ne loolu mooy eh, yow tabax dafa dafa tabaxur ci ci ci li ngay wax waaw te bët bu seen nga dégg fi ay tuux yi doon ñuy wax koo xam ne dañu jàpp ne yow nga wala doomi sëriñ nga nga toog si télé di fatwa loo xam ne ijma yëpp d'accord nañ si ne loolu du ah, nekku bi nga bugg koo saxal ñaar rek ñoo lay gëm waaw ki nga xam ne xamul dara dara dara dara moo lay dëggal wala saay-saay bi nga xam ne moom dafa bugg a def diine bu nekk ci lu ko neex ba pare jàpp na mu ngi ci diine wala yàqkatu diine boo xam ne moom li bëgg mooy diine ji yàqu loolu yëpp euh, moo tax télévision yi ñu ñu leen di favoriser télévision yi ñu nekk seen gannaaw euh, ñoom ak yàq xeexkatu diine lañ fa yaxarum muy xaraamal mi na taalumi ci njàng su ko defee mu ne moo xëpp na jàng ñi nekk si télé yëpp koo si noonu kay dem jàngi daf lay ku may jàngal ëpp na jàpp ne moom dafa war a jàngale kamaaxoo comme ni nga xam ne moom soonu baadu man iddaa mooy mbirum ñenn ñi nga xam ne dañuy woote alxem mu xam-xam min indil asri si ñun jamono yi mooy ñi nga xam ne dañoo def seen bopp xam-xam borom xam-xam di xubbee di def ay di def ay tekk si xutbee jumaa y tal tuuti lañ xam si xam-xam koo ci lëmbaaji ay mbooti biiram mu nax moo tax ñuy moo tax nag ñuy attaqué nit yàlla yi di attaqué borom xam-xam ñàkk xam-xam moo moo ko waral ndax weddi bala nga koo def dafa am ay sart te bu ñëwee si kanam Cheikh Oumar dana wax ne kii war a def inkaar li war a làmboo ci ay xam-xam dañu ñu gën ñii lii géeju nii ñëpp dañ ko danga ko war a géeju du doon looy làmbatu di di wax rek su ko defee fa yëpp xaamu des fi sulumaatil jahli ci lënd mi réer yi kooku nga xam ne amul sëriñ boo xam ne dafa géeju ci lépp ba nga xam ne moom li mu foog ne xam-xam la bu demee won ko ne yow li nga xam du dara si njuumte nga nekk xamatut moom mu jàpp ne borom xam-xam la taxaw ci kaw géew yi di di di di bàkku loolu su ko defee euh, dootu nangoo jàng su ko defee nag mu laf ci euh, lënd bon bokk na ci liy tax nit ki bañ a xam-xam bu bëri mooy ñàkk ay sëriñ yoo xam ne am nañ xam-xam géeju nañ si xam fànn yëpp nga mën faa dem jàng fi mu ne nii naxu bi fi mu ne nii bu fekkoon defoon nañ imtihaan ci ci ci yëf yi ah ci jàll dañu néew de wa minha bokk na si tasawuqu taalibil almi soppoog aji sàkku ji xam-xam ji ilaa an yuqaale suñu ci ñuy wax ne inna fulaanan naka diw xasala xam na loo ñeel ko kasiir lu bëri mu ne loolu ci xam-xam léegi jàngkat ak kami sàkku xam-xam yi bokk na ci li nga xam ne day tax nit yi borom xam-xam du bokk ci borom xam-xam yu mag ñi bëgg ñu naan diw di jàng na lu bëri diw jàng na lu bëri su ko defee fa nekk suru muy bëril dersa woo dersa bi muy dem da nga gis muy jàng ñetti téere waaw dem si euh, sëñ daara bi si bi mu defal ko téere mu dem si ders bële ñetti ders dana ko si bés bi wala ñeent wa yàllu bu muy sàkku min muallimi yi ci bi ustaas yi ak ustaasam an yu darasoo an yu darasoo mu koy jàngal fi majlisin waaye dañ ci benn benn jataay maa yadrusu lu muy jàngal xayru woo ku dul moom fi majalisin kaseetin ci ay jataay yu bëri wala mu ñëw si seen daara na ko Samba Samba mii dafa borom téere bi jàng na ko fi weer moom mu bëgg téere bi sëñ daara ko ko ñetti fan wala ña benn semaine. su doonee tafsir alquran kii su mun la ko sëñ sa tafsiral moom mu ñëw bëgg mu tafsir ko si xis bi fa yat abu mu sonal nafsoo boppam wasay ko ak sëriñam su ko defee mu sonal boppam sonal sëriñam bu dee sëriñ bu ñàkk bopp waaye mag njëkk ñi moom boo leen jàngal dañuy dem ñu leen xamal foofu waaw foofu nga ne foofu ngay am waaye su dee jëmal léegi da ngay da ngay wax ne da yow yaay yaay yaay wax ne ah, ah, demal man man naa mën naa ko demal su sëñ bi ñàkkee bopp nag wax a wax ba bugg a dee sama bopp nag mu man foofu laa mën a léegi nag sëñ yooyu mooy ñi géeju woon nga xam ne ñoom dañoo xam walóoru xam-xam ak walóoru njàngale seetuñ taalib bi li ko neex ñoom li baax ci moom la ñuy seet léegi nag li neex taalib bi rek la jàngalekat bi seet su ko defee dana sonn sonal la dana sonn sonal sëriñ bi min xayri taayilin si njëriñ yax sonn loo xam ne dana am leew ñaar ko dana sonn ba pare du am jaxam ndax mag ngi dañu wax kutubun xaliil ilmun kasiir bind bu tuuti xam-xam bu bëri wala téere yu tuuti ngay jàng jàng ko njàng mu sel nga xam si xam-xam bu bëri wala nga jàng dërsi bu rëy doo ko dégg doo si am njëriñ wa minha bokk na ci li nga xam ne day xañ nit ki mu bokk ci akabirul ulama yi ci ponkali xam-xam bi tarku suali masaaxi bàyyi laaj sëriñ léegi doo laaj sëriñ bi bi nga xam ne moom géeju na xam na lépp doo ko laaj loo xamut au lieu nga dem sa ka nga xam ne moo ko xam fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun doo laajatuñ leen waaye tamit am na si sëriñ yoo xam ne ci ñoo xam ne ñu nga toog si place sëriñ fañ toog tamit bëgguñ ku leen laaj ndax ku leen laaj euh, duñ la mën a tontu te booba dañuy jàpp ne yow da nga leen di euh, tuur léeg sax ña wër sax boo laajee ñu la waaye lu tax ngay laaj sëriñ bi wal farqu wal firaqu kuréel yi bay na xaar si nekk na si si si yii nii diggante yii mu ne féex yi nag ñu ngi si diggante lii ma la wax ci la féex yi nekk benn ku rëy baa ku bañ a jàng baa ku bugg eh, maa jàng lu bëri baa koo xam ne dafa bugg àddina ñi ma lim ne daal ñooy kuréel yi nga xam ne ñoo nekk fii ci ci ñoo saytu ñoom la ñuy tuddee ay boromi xam-xam mu ne wal aafatul ula gàkk bi gi njëkk nag bi nga xam ne mooy ay bi njëkk ana tilka naka yooyee firax fi les yi nekk na ci mu ne ana tilka naka boobale gàkk fi la si nekk na ca waaj a xam ne moom laa yasalu du laaj illaa ulama i mashabi imaamihi lu may borom xam-xami ngirëm xilimaanam mu ne bi ci gën a garaaw nag mooy ki nga xam ne moom nee na man duma laaj kenn sama ngërëm xilimaan rek sama xilimaan daal li wax no doon la nga xam ne bu fekkoon ne demoon nañ yow sa masab bi ñu si nekk ñu ne weer wi feeñ na te ñoom sa sa masab gisu ko waxut ne feeñ na doonte gis nga ko dangay wax ne man gannaaw si waxuñ ko du du ma xoor wala du ma xori wala ñu ne gisuñ ko yow sa sa gaa yi ne rek weer wi feeñ na ñu te ñëpp ñu gisuñ ko ñu ne dangay wax ne man gannaaw si sama sama sama masa sama imam wax na ne weer wi feeñ na rek ah, dañuy xoor suba dañuy doonte man waxuma ne gis nañ ko wala sama yoon nekku ci loolu loolu mooy aafu boobu mooy gën a moo gën a garaaw mu ne waxaasi yi bi gàkk fii la si nekk na ci nga xam ne nag laa yes alu du laaj mutlaqan faaw kii moom def na man sama masab rek borom xam-xam yi ngir mi rek laay laaj suñ duñ xamee baax na buñ ko xamul man duma laaj keneen mu ne kooku mooy waaye mu ne ki si gën a nekk nag gën a garaaw mooy ki nga xam ne moom def du ma laaj xam nga alfarqu alfiraqu ala alfarqu da tàqar gi bay noowaa seen diggante ñoom ñaar kii ne du ma laaj lu may sama xilimaan yi sama xam-xam masa ak ki nga xam ne man dama du ma laaj kenn ndax man xam naa lépp xam naa ko te ke ndax ku ne du ma laaj kenn mooy xam naa lépp te te te wama utiitum min ilmin illaa qaliilan la yàlla wax tuuti lañ leen jox si xam-xam boo ko kulli shay'in min nekk na ci kaw ku aji xam ju nekk ku ko gën a xam من فعل مكمل لأنه لكم لا مانع دتر لمن يدعي كتهوتنا الحل مكمكم من سؤال العلماء تلاج برم كمكم إلا الجهل لميرير الصريح بو بر لأنه نخمم لو كان سنكون من العلماء تبرم كمكم المطلين يير لا علم مكم نكون أن كثيرا نك نبري من النواسل تي واتش واتش واتش والحوادث أقصى قوي لا يوجد دهم لا أن يكون نص على أحكامها تحتم fi masa bi ci ngërëm mi aw yujud wala mu xam laxaañal ko nasun ngir yax fi masa bi ci ngërëm mi walakin wante moom laa yaxtamit du sukkandiku alee ci nas bi li kaw nii nga rek nekkam nas ba baatilan di lu neen aw daifan wala net lot imma benn mu nekk lu leen wala muy lot li susuusin ngi rek beru susuus mooy loo xam ne ben nit ko wax wala wala lu tuuti dal nga xamne ne jumhur yëpp buñ dajale won don temer 99 vingt yeb ci la lay ànd moom kenn moo moo ànd si loolu loolu moo suusuus aw li dox madrakihi wala néew ak xelam ma ba ki nga ma dafa néew ba nga am mu jàpp wala muy al usul cosaan أو القلاعدي ولا بونكي أو الإجماع ولا دبوم برام خم خم من نعم مثلا بمليمي لا ممكن مثلا بمي ولا أمور في أمور أمور يخ أمور أمور يخ بمسنيك شاتم ولا يخ بأم نجوا يخ بي بين كسيت يبير دفن يك باطل ولا ضعيف دخلا سوسو سازل نيو نيو تي نيو نيو كوا ولا نيكو نتالي dañoo seen xel yi matul wala dañu am manque manque xel wala mu wuuteeg sosaan usul li nga xam ne mooy usul sharia wala mu wuute ak ijtimaawul wala maa yi su boobaa nas su booba dañ ko fay bàyyi duñ ko jëfe ndax daif la mu ne su fekkee ne loolu mu ngi si nag mën naa am masa bam la aw yujadu wala mu am laa ñaar ko nas mu yax yaa tamit bu ñu sukkandiku alee ci moom walakin wante moom laa qudrata déet kàttan ala tanawulihi ci jëfandikoo ko min amaakinihi ci palaasam yi wala sax masal bi mu li mu wax xew ko bi ñëw am na nas waaye mënu ko appliquer ci fa mu nekk nas bi mënu ko appliquer fa mu nekk nga ne ko koy tere mën a appliquer mu ne imma li adami wujudil malakati benn ngeen ñàkk xam ak malaka mooy xel mu sell moo xam ne dana ci mën a ballalu ba génnee xàtte bi wasu u fahmi yi ak ñaaw ak déggam wala koo xam ne dégg gi dafa naqari mal la am aw li xusuuri idlaa yi wala lim yër bëriwut ba nga xam ne dana mën a dégg nas bi nga ne ko lu mu ne li xelati maa indoo ngir néew la nekk ci moom mi na riwaayate ci ay نتلي ودراياتي أقم من دواوين العلماء كتيري برام خم خمي ولا موم لتخ قم اللبري كتيري برام خم خمي لين نتلي لي اللبري لين لين لين وخ قاموس اللبري هموس خم خم كوكو لا تخ نص لي دوكو واحد دوكو من ديك قال لك أمهات المذاهبي niki ndey mazhab yi ummuhaat mooy téere yu mag yi mazhab yi umm fii umm fii mooy mooy usul kutubu kibaar allati yi nga xam ne hiya moom al mudawwana mooy mooy mel ni mudawwana soo demee si mazhabu Malik al mudawwana mooy ummuha mooy ummuha mooy ummul kitaab boo xam si si mazhabu Malik mooy moo si gën a rëy al mudawwana lépp a ngi ci wala ot wala ot ولا عد بيتو سالي ماشي ما سبع عد بيه أمنا أبتير له والمجموعة والمجموعة التير بنتو ده المجموعة الواضع وقيلها عبيد النوم من كتبي ولا ما المسابي تير المسابي متونا أنت أيخ وصرون أك أي سرا موتا مني باين koo xam ne nag dafay woote xam-xam li koy waral mooy bañ a laaj xam-xam yi kenn du ko def mooy kuréel ndax su bokkoo ne boroom xam-xam la bu am bu yër dara dana xam ne lu bari ci ay xew ko yu wàcc wala ay ay xatte yu ñëw benn xamul ci nas ci masabam wala bu amee nas ci masabam nas bu duñ sukkandiku ndax nas bu wérul ndax sa saag la wala daif la ولا مهوت أزول ولا قوى أريج الماء ولا إجتماع إجماع ولا مهم نص باق مثلا نسون كل واحد مهم تبابهم أمور كاتن منا جل جل جفون يكون آه، نص باق تبلازي غير مهم أمور ملكة أمور خل مهم كمان جستو آه، أمور ديجوكم كمان جستو ندخل لير لبري لم كم بريود كتيري برام خام خامي كم داي تيري كم كم مدوانا ولا أتبي أكمل مول واجه كم شلو بري ci téere yi masar bi moo xam yaxli la moo xam saraayi mu lay indil téere yi mu ne la ka tabsiratu laxam yi ni ku mel ni tabsiratu laxam yi moom téere la boo xam ne ku si dem lu bëri wa bay wal bayaan wa taxsil ak téere bi ñu tuddee bayaan wa taxsil mooy leeral ak xamal li ibnu rusdi moo ko taali ibnu rusdi wa jawaayiru ibnu saas ak téere bi ñu tuddee jawaayiru ibnu saas ci ci euh, ummaatu kutubi la bokk ونحوها أجن ملمم من دواوين الفقهي آه، تيري فقهي دواوين موي تيري مكي فقهي كوكونك فكيف يسهمو نكالينه من لم يكن كن يكن هندو وكموم إلى بعض مختصرات لما ينن من قطري نكالينه كي كو خمني يو مختصر رنجا جانج جانجو تيري مكي كرسالة ابن أبي سيدين yow muxtasaru risaala abdu seyni nga jàng risaala nga jàng rek wala muxtasaru cheikh xalil wala nga jàng muxtasaru xalil rek wa toxfatul hukaam wala nga jàng téere bi ñuy wax toxfatul hukaam ci téere fiq yu njàng wa xawaaninu ibnu jisi ak reegalu ibnu jisi xawaaninu ibnu jisi yi ay téere fiq la yoo xam ne yu siiwlu fii maha annaha xànd ak naka téere yooyu innama sanafa naka taalif na ko mas mun si fuuhaa ña taalif li yabtadi ngir mu tàmbali bii ci mu atalabatu eh, jàng sàkkul xam-xam yi téere yooyu dañ koo taalifoon pour sàkku xam-xam yi mën see tàmbali bon nag su fekkee yow da nga koo jàng rek bu def nag sa bopp mufti su boobaa ci ay erreur ngay dëkk li yekkoon ngir mu nekk tax si luwaa ak xamalam bu fahmu maani ak dégg maanaam yi wa fax nu maani maa fiya ak dégg maanaa li nga xam ne moo nekk ci yu gà yuñ gàttal yooyu xaw na nit ndimbal lahum ñeel leen ala fatil baabi ci hubbi bunt bi allasi bi nga xam ne yaddu xuloon dañuy duggee minu ci moom ila taalum mutawalaati i jàng yuñ guddal yi ko ulumumaati ni ki ndey téere yi mooy cosaan yi wa xayda ak yu dul ñoom maanaa ñoom dañ ko defoon muxtatan yi pour nga mu nekk di ndimbale taalibe bi mu mën a nekk tàmbaliwaay bu mën a duggee ba dem dugg ci téere yu mag yi mën a xam la ca nekk waaye duul ne ñoom ñooy masab bi rek wala ñooy xam-xam bi rek ilaa taalamu tawala kun ma du xayra aw yakunu wala mu nekk min baadi walla masab wala ah, wa xam-xam boobu mu nekk ci yenn boroom xam-xam masab bi wa inna kullu man la wa inna kullu ma lam yaskuru lépp loo xam ne tudduñ ko fi tilkal muxtasaraat ci ci yiñ yooyu xend moom fi moom lay sa binal masab bokkul ci masab wala mu nekk si borom xam-xam masab nga xam ne moom day wax ne luñ jàng lu ma lu lu nekkul ci e, boobu rek si boobu bokkul ci masab bi wa ma mislu haza déet misaal déet misaal kem kii إلا كمن قال لما كان وخ ملني كنا خمنا وخنا ليس في مسب مالي نيكو تي مسب مالي إلا صلاة لما يجلي ما كنا خمنا في مسب مالي جلي رك ما ما ما ما مسيا مالي شي جلي رك لا وخ مسب مالي جلي رك لا أني آه، نقول لأن الأخضرية نخ إمام أخضرية عالم برام قام قام لمن علماء المسبي برام قام قام مسبي waaw kaana su fekkoon nekk na xayra salaati lu dul julli fi bi malik si masga malik zakaro bon mu tudd ko ci laxdari ñu ne ko waaw yu tax nga ni julli rek mu ne waaw ndax imaam laxdari boroom xam-xam masab malik la te bi waxu ci dara may julli su fekkoon ne julli su fekkoon ne malik leneen lañ si dana ko wax ci téeréem bi mu ne xam nga loolu erreur kama sakara comme nu mu tuddee asalaatu julli بيكونون دنا وقت أعسكا آه، وقت لحد أني ما خي جولي بان كم كوهو مجي حتى لو خمني توت إلا تلو بري أو كمان يقول ولا كنا خمد فرح ليس في مسا بي نكو تيم درمي مم مالي إلا الصلاة اللي مي جولي وسكا أعسكا وصم وقار والحج وحج ينقع يولو تحنق وخلول تكلم من من لأن ابن العاشر ده ابن العاشر ما سكر تدل في منصومته في نصيم بي المرسل المعين mooy téeréem bi tudd musalma waxu ci ilaa asir maskuraat lu may yi ñu tudd ndax ibnu asir im xaalim la ci masam malik waaye waxut ca téeréem ba lu may julli asaka ah, sawmu ah, ak xaj bon nag su fekkoon ne leneen nañ ko dana ko wax aw kama yaqul wala na muy waxee kullu man lam yaskur képp koo xam ne eh, tudd fil ajurumee ci ci la ajuróoma وفي خلاصة ابن مالك أكس خلاصة ابن مالك ليس من علم النحو من لما جانغو سي لما جانغو سي أجمو رك ولا لما جانغو سي ابن مالك بوكو تي نحو كل ما لم يذكر لب لن تدد في الأربعين النووية في الأربعين النووية من الحديث حديث بوك حمود حمود حديث حمود حديث أو كما يقول ولا كوي وحني كل ما لم يذكر لب لن تدد في هرمت حتى يزي تيم بنيوحي كما حتى ولاي ليس من علم التصوف بوكو تي التصوف أقام التصوف هيكما أعطاها لا يلينش فوق رك بوكو تي التصوف وهكذا نكني يقال له في سائر العلوم تنبالم كم كمي ولم يدري تقمل هذا كي أن الجهول نكا كرير إن هذه المختصرات نكي تيري نكتالي ما ألفت تالفنكو وما ابتدى تنبلي بها تمو المبتدون ني تنبلي جنگ لجمعها ngir dajale ko li jamaa ngir dajale ku lu kullul matlubi lépp luñ sàkku taalifuñ kon pour def ci lépp luñ sàkku dañ ko defoon muy premier escalier booy jànge boo jógee si boobu dem si beneen dem si beneen ba ba ngay jeexal xam-xam yëpp walakin toxinu dafay dimbale almubtadina way tàmbali ñi ala ci jàng li ma siwaa ca leneen lu moom bon loolu moo tax dañ ko def pour mu nekk escalier ndax jàng par étape ngay def bon soo déggee loolu da xam ne kon xam-xam dafa yaayaagoo xam ne doo jàng ñaari hadis rek wala ñu firil la benn aaya wala benn firil la fi am prix nga dem ne loolu mooy li wér ku ci nekkul nekkoo ci dara xamoo du du ku wax leneen nga ne ko kooku wax du dëgg loolu moo indi lu bëri ci jamono bi fi mu ne nii wax ji bëri te du xam benn njariñ rawatina weeru koor wi nag booy seetaan télé yi yow fekkee ne xam nga tuuti sax sa bopp dafay metti waaw dangay gis ku ñu yaakaaree xam-xam benn nga bokk si kër ak xam-xam wala bokk si eh, ñu jox la garaat bu rëy ngay wax loo xam ne dara tegu si sa xam-xam boo xuusee si biir xam-xam rek da xam ne yow li ngay wax amul wala moo tax طالوخ في ألفية سنة إيه، بنيو ألفية سنة كيكو طالب ليلا وي منو أفضل العلوم علم يقترب يقترب به الفتى من ربه فيما يجب منو أفضل العلوم يجن خم خم علم خم خم يقترب دنا جيجا يوم بيجي مو الفتى استمسي من ربه في برمو فيما يجب تلقى نوار خم خم يجن ما خم خم ما خم نداولي دفتي جيجا يوم برمو تلقى خم نموك وراه من فليبسل الجهد بما يسيد نور الهدى في كل ما يريد من فليبسل نجح الجهد كتن بما يسيد تلو خمد فاي دولي نور الهدى ليرن جب كي ساكو نا جو غور غور سي لو دولي ليرن جب في كل ما يريد سي لب لم نم لب لو بوغ دال لا سي دوخ ليرن جب نان غور غور فان انواع العلوم تختلف وبعدها بشرط بعد مرتبط من ف إن أنواع العلوم نك قيت خم خمي تختلف دفعي جخصو وبعضها يعني بشرط إننا نك شرط بشرط بعد نك شرط يعني مرتبط تكو يعني خم خمي شرط التي يعني خم خمي مثلا تفسير القرآن بو بوجي بيجا القرآن شرط خم نحو خم بلاغة خم بيان لولو دفعي استباد تني تكو لانتو نحوتين بولمي فوق متقل فوق بلاصه دمت بولمي تي حد استمين فوق مدف ارتباط تي حد تي تي القران اك تي تي تي تي لغه داخ بعد بي نمي في معنى مي داي تاخ غمانا كومبراند فقه تمين فوق مهم ارتباط تي حديث اك تي القران اك تي لغه moo tax mu la xam-xam yow dañoo jaxasoo te benn yenn sart lañ ci yenn yi looloo tax mag ñi di jàng naxu di jàng luxa arabiya yëpp dañ si jugoon pour dégg alxuraan ndax boo déggul euh, luxa arabiya doo mën a dégg alxuraan dégg alxuraan ji miin pour mën a xam sharia looloo tax euh, luxa arab yi ñu koy jàng sooy jàng luxa arab yi nag foog nga xam naxu xam balaa xam yëpp ba nga xam ne luñ si bind danga ko mën a xam duñ koo jàng soo gisee hadis da nga mën a dégg hadis bi boo jàngee aaya da nga ko mën a dégg xam maanaam am na ay baat boo xam ne dafay parampose dafay firi gannaaw di firi kanam yooyu yëpp da nga ko def laajo moo tax taxaw di ubbee mag borom xam-xam sax dantañ ko daan daw mu ne famaa xawal xaayata fii alfi sana fa famaa xawal xaayata fii alfi sana saxsun qus min kulli fannin ahsana mun naa fa maa xawaa làqul alxaayata dayob xam-xam fi alfi sanatin junni xat sax suñ benn jëm junni xat boo ko doon sàkku lu tax nga làq xam-xam yépp bon yow fokku na nga jël min kulli fànnin ci fànn gu nekk axsana la si gën a rafet sooy tàkk xam-xam seetal xam-xam fànn gu nekk nga jël sa la gën a rafet nga ne ko nuñ ko def mu ne bi xif si mat matnin jaamiin li raajixi taaxusu ala muf tayidin naasi mu ne bi xif si matnin ci mokkalab yax yax mooy niñ bind nga xam ne sara jaamixin buy aji dajale li raajihin li lëng nga mokkal yax boo xam ne dafa dajale li lëng li nga xam ne li ëpp ci lañ d'accord taaxusu nga jëlee ko nag alaa mu alaa mu xayidin ci aji tënk joo xam ne naasin day laayee nga jëlee ko nag ci koo xam ne ba mu koy tënk kuy laayee biir la maanaam duul koo xam ne dafay naxe wala mu lay euh, tromper suma maal fursati fabxas anhu xaqiq wa daqiq mastamadda minhu mu ne suma maal fursati ànd ak am temps ak occasion soo jàngee nag ba xam jumtuwaay yooyu soo amee temps nag fab xas na ngay gëstu ànd ci moom toujours nag boo am temps nag nga dem gëstu ji xam-xam xaqiq dëggalal taxqiq nga di dëgg wa daqiq nga sewal mooy de dëggu te gëstu bu ne xóot xóot sew bu laal laal ci kaw rek na nga ko taxqiq ba xam liy dëgg ak li dul dëgg li wér ak li wérul wa tax na nga sewal mastamada la nga ne yaa ngi koy tëbboo minu ci moom li ngay tëbb ci xam-xam na nga fexe dëggal ko fexe ko sàkku bu baax a baax dem si ba jeex bon loolu mooy yi nga xam ne eh, afaat yi nga xam ne mooy gàllankoor bi si gën a njëkk mooy bañ laaj lu may sa borom xam-xam mu gërëm waaye beneen bi nag mooy ba far bañ a kenn ndax euh, voilà aussi sa masab bi téere yi sa masab bi rek matalu dajalut xam-xam yëpp naka xamee ne téere sa benn téere dajalut masab bi yëpp comme ni ko waxee si laxdar yu risaala xalil euh, ajruma yooyu ay tàmbalikaay la yow mi nga xam ne nag si laxdar yi rek nga jàng ki jàng ba jàng mu daw na la muy wax nga weddi ko boobu yow yaa ngi yaa ngi tooñ dangaa waroon dem ci moom jàng mu ngi mel ni e, e, élève bu nekk si euh, primaire nit ki ñëw jógee université di wax yow dangaa jàng science rek la théorie yu nga jàng moom mu ñëw di wax li nekk si suuf si ak sa biir ak li sa tàngaay bi nga nga nga naan kii di muy wax kii wax amul la xam-xam yëpp mel moo tax euh, ñi sàkku xam-xam taalibe nañu góorgóorlu bànneexu xam-xam nag dafa neex boo ci xamee tuuti rek ba dàkk jàng arab jàng naxu mën a xam buñ firee nga dégg ko léeg-léeg nga mën a boole sa ba dóor say bayit dangay jàpp ne borom xam nga fekk na nag boobu dangaa tàmbali rek soo ko defee nag boo ko defee loolu xam ko soo continuer rek danga bokk ci kabiroon ulamaa yi waaye boo doy loolu nga am rek danga dootoo nekk borom xam loolu lépp mooy ñaax jàngkat yi pour ñu doble di gëstu di sàkk loo xamul ka nga gis ne xam na ko nga laaj ko kooku bu ko bo la lam xam bu jeexee nga dem si keneen su yàggee nga nekk nga alim bu mag yàlla yàlla may dégg ak topp yàlla ñu defal ñu taw suñ ndaw yi jàng yàlla may leen xam-xam bu bari ba ànd ak jub te may leen wërsëg bu bëri ba ànd ak ak fan yu gudd ànd wér sàmmal ñu suñu diine sàmmal ñu suñu tarixa sàmmal suñu réew mi bañ a bañ koo yàq ci barke yoon ci barke weeru koor yëpp yàlla ko yàlla faj lépp loo xam ne ji lu gën ci ñun la ci àddina ak àllaaxira ñu ñaan ko wala ñaanuñ ko xam na ko yàlla ñu defal defal ko suñu njaboot defal ko mboolem ñu di ak seen njaboot lépp luy lor jàmm bi àddina ak àllaaxira ñu muslu ko wala ñu musal musal ci njaboot gi musal ci mboolem yàlla sàmm nañu sàmm réew mi sàmm réew julli ñëpp ci barke bi alkoor yi ci barke bi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim aballahu an asum ila ghayri sayyidina imami